dañoo ñëwoon fii ci Malika doon def reportage mais malheureusement bu ñu paree dañoo gis benn waay koo xamante ne benn frère euh, moom dafa dem ba léegi gisuñu ko moom mu doon ñëw fii pour xool ba xam mi ngi fi nekk fii duñ def lu dul euh, jox ko kàddu yi waxtaan ak moom sëñ ñu leen di di les ziar. Ah, maa leen sant bu baax man daa sama rakk mu fi ko waa démb la jóge woon kër ga tàgguñu géej mais ba léegi fanaan wul ba tey jii nii gisuñu ko. Euh, tur bi nan la. Fallou Ndaw la tudd waaw. Ah, nan nga tudd. man Aliou Ndaw man maay magam quoi. si mën ñoo xam démb ci ban heure la génn. Euh, bi ma añee ba pare ay trois heures la quitté mais dégg nañu dem nañ benn gaal xaritam quoi ay 5 heures moom la fa jugee départ si ñëw géej fii nii boobu daal lañ gëj am ay nouvelles si moom waaw ba léegi nii. est-ce bi muy génn amul ñeneen ñu ma àndal. non àndul a kenn booy koñ ma daal ñoo gis ne ñëw na fi ñoom bi ñu ñibbi fi lañ ko bàyyi. est-ce que mën nañoo xam exactement moom fan la dëkk. mu ngi dëkk ma xool boo ñëwee ba Malika ñaax euh, école Joola rek. loolu Joola waaw koñ boobu foo ko laajee rek foofu la tool bi rek. léegi nee jàpp ne moom ci géej gi la ñëwoon wala. non fi la ñëwoon parce que ñun man man la tàggu bi muy génn ma géej laa dem mais xam naa ne ay côté 5 heures noonu la kii rek pour ñëw fii nii quoi. yéen def ci moom recherche wala nan la demee noonu. noo démb si guddi gi noonu ma dem naa police Malika def déclaration ñu ne ma da ngay dem CTO boo xëyee ci laa dem CTO ak sama nijaa bi mais dem nañ morgo bi xool nañ nekk fa quoi. ñi fa ñi nga xam ne ñoo faatu woon ci ci géej gi démb yëpp mais gisoo leen waaw en tout cas am nañ ñun wan quoi mais moom bokk si après ñoom ñu tegtal ñu hôpital Kër Massar après ci lañ fa yawal grand bi quoi moom mais moom xanaa doo ñëw ci géej gi pourquoi ne dafa ñëwoon fii ci géej gi non man moom xamoon naa ne moom du nitu géej sax warul sax ñëw géej ndax moom samedi bi ñëwoon na xam naa mu neex rek mu ne xaama demaat dimanche mooy loolu noonu mais xam nga bu ñu tàggoo moom même boo leen teree sax dañuy dem mënoo si dara léegi est ce que mënoo jox numéro boo xam ne bu ñu ko gisee nañ ko mën a euh, rechercher. waaw eh, da ngay jël 78 307 86 89 wala 76 306 81 65 waaw 78 307 86 89 wala ci góob bi 76 306 81 65. est ce que mënuñoo xam tamit xale bi ban âge la am. 15 ans 15 ans lay am waaw. tey bi ngeen seen kër la ban ban yére la soloon. pàcc bu ñuul la sol ak t bu vert waaw benn pàcc bu noir ak t bu vert la sol. élève la wala. non non menuisier bois la waaw. ok ñu lay jaajëfal incha allah lépp luñ ci mën nag ci kàttan yàlla dinañ ko ci dem ok merci waaw. ku baax ñu leen di di la ñoo ngi lay fay ku baax. gis ni yaa ngi waaj yéen ànd recherche ci xale boobu noonu muy wax te la nga mën a wax ci loolu. waaw sunu dëkkandoo la de muy ku baax soo bañ xëyee ba léegi ñoo bokk ñoo bokk bagage yi di ko wër mënugu ñoo wax ne daa dem ci géej gi mënugu ñoo wax daa dem fii. waaye ku tàggoo géej su tàggoo géej nga ci ci même heure bi nga dégg ne am na ay xale yu fi lab sa xel dina ñaaw moo waral soo ba léegi ñuy wër man xëy naa dem Kër masaar hôpital ba jóge fa dem Thiaroy dem naa Camp Sapeur dem naa Roi Baudouin mais booba léegi gisuñu ñuy ñaan mbokk taalibe yi ku ko fu ko waay gis jàppale ñu si te yàlla tax fàllu fàllu ndaw la tudd waaw te boo xoolee géej gi ni mel nii état war naa dugal loxoom ci lii bu baax ndax askan waa ngi jeex chaque at nga dégg ay xale yu bari yu fiy wadd chaque at nga dégg géej gaa ngi lekk nangam personne kon war na ñoo mën a localiser géej gi fu xóot ñu protéger ko pour suñuy ndaw ak suñuy doomu réew mi waaw buñ ci jógee def ko. mais si tamit parents yi tamit waruñoo mën a xoolaat seen doom yi fu ñuy dem ak fu ñuy dugg. waaw xam nga nit moom nit la rek te koo xam ne bu xëyee day wuti loo am loo dundee. xale bi yar nañ ko fañ ko war a yare nekk fa mu war a ne mais suñ borom bu ñëwee rek ñëw na kenn mënu ci dara waaye dafa am foo xam ne ci géej gi xóot na te xale yi duñ ko xam lébu nit sax ku dul lébu mën ngaa ñëw xool géej gi xam ne fii xóotul doo ci xam dara mag sax day lab léegi nag zone yi nga xam ne danger la war nañu ko protéger ba nga xam ne xale bu fi jub si dina xam ne fii kat danger la mu moytu ko waaw parce que géej gi xoolal lii yëpp war nañoo protéger fi nga xam ne danger la ñu xam ne fii danger la. léegi sax kenn da cee warul sangu ndax nekkul géej boo xam ne pour ñëw sangu la. waaw mi ngi noonu comme du géeju sangu ñoom ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yor gox bi war na ñoo mën a lancer seen message wax ak ndaw ñi askan wi ne leen kat géej gi du géeju sangu ku bëgg a sangu dama lii teel ñu xam ne lii la ñu mën a dimbali ndaw ñi dimbali seen i doom waaw ñoo ngi jegal lu baax ndax lii nii ñu ñëpp la métti waaw neexunu ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant